non parce que du seen wax informé ah, ci un dossier judiciaire moom buy ñëw dañ koy hmm. nekk kii bu mu wax votre machine la day kii rek moom a perturber nit ñi waaye tapaab di nga muñ wax non mhm. dama ni wax dama ni ñaata dossier ñoo fi nekk ay eh, Pape doo déglu nag suñu bokk bu bokkul ci ñun kay kon am na fu ñu nag génn leen ay yar génn leen ay yar dafa dagan quoi parce que duñ bàyyi nit ñi ñuy wax dañuy wax ba géej gi wàcc fi boobu xëy dana noppi dóor ko ndax mu noppi waaw dana wax <laughs> soo ko tuddee dana wax sama grand la quoi maa ko doole mais vas léegi dama ne ñaata dossier ñoo fi nekk des journalistes pro pouvoir audition bu am deux heures a temps après ñu génn ko publier ko te waxoo ci seen camp bu ñu génnee dañ koy rafet doo dégg ñu démentir leen tey ji ñaata PV ñooy nekk police Pam Ndiaye xam nga bu baax li ma lay wax jamono ji ñu lay auditionné ces déclarations ñu ngi koy publier di ko partage te ñi koy def pour pouvoir lañ il fallait accla accabler quelqu'un boo xam te nit ni il se dot en tout en assumant la posture d'opposant c'est pas parce que tey jii ay journalistes d'investigation def nañ ci ay jàngat te sax waxuma preuve damay def nañ ci ay jàngat très poussé parce que li tax ma wax loolu ce n'est pas parce ñoom ñoo am le monopole de la vérité wala le monopole des preuves dama kaa wax pour wax la ne la xale bi mujjee judd wala ganaar gi mujjee sab démb sax xam nañu dossier bi xam nañu si nekk ñëpp. dama laa wax ne ñooñ peut seen posture seen statut may na leen ñu génne def ay révélation ban statut la ñoom waaw non c'est su ne journal investigation ça veut dire quoi mais investigation si yeneen nga xam ne benn société ak kenn ñeen nguur gi hmm. lu ñu def dañoo ubbi information judiciaire sur la base d'une simple déclaration d'un simple rapport d'un journaliste journaliste yi ne fii il faut qu'on arrête. non c'est may ma ma yeggali. waaw léegi c'est un dossier en cours. waaw léegi may ma ma yeggali c'est pas une révélation de journal d'investigation qui mm-hmm. doit conditionner l'ouverture d'une enquête. xam nga dama ne la dama ne la BBC. génne na wax ngeen ubbi information judiciaire BBC. waxee sa Angleterre benn xale bu jigéen. bu ñëw fii alors que dossier bi ay acteurs politiques fii wax nañ ci. Mm-hmm. waxati ci waxati ci il a fallu BBC. wax ci yéen taxaw léegi mais beneen bi kaay ma jox la benn exemple mm-hmm. Jeune Afrique Le Monde TV5 waxuñu si dossier bi ban position ngeen ci am da ngeen génn wax ni journaliste yi li ñuy wax teguñu ko fenn parce que ñu ngi doon defal benn portrait bu rafet xale bu jigéen bi mu naan man amatuma sax lu ma jëndee nangam nangam ñu ko présenté comme une femme pieuse. ça ne lie pas le juge. comme une femme pieuse. ba ci jógee lan lañ wax xale bu jigéen bi ni mu solee takk geref non franchement il faut tamit Sénégal il faut que ñu wàccaat respecter les am yoo ne boo koy def. pour man joxoo cër sax 17 millions de sénégalais yi lay suivre waaye nag gis nga cëppi cëppi yàlli yàlli dama ni sénégalais yi am nañ ci déjà une perception jugé nañ ko ba pare maintenant ñëpp nag mer bu am na fi y a yaa moo wax léegi ne ma dañoo war a ñaawlu 14 mois li fi am yëpp 14 morts dama ni buñ nekkoon ci état bu normal non bu ñu nekkoon ci dëkk bu normal ay nit xale ñi sox leen ay balu fetal sox tël ñu faatu ci condition yoo xam ay force de l'ordre lañu gis ay vidéo am bu fekkoon da nga ni xale yi dañ leen war a rendre justice taxaw ñu di ñaaw lu li am dañ leen war a rendre justice bu ñu nekkoon si état bu normal ñaka def ak ñeneen ka sant xam nañ leen état bu normal bu ñu ci nekkoon wala état de droit du ay mémorandum la gouvernement bi di génne jox ko ministre des forces armées wala ministre des affaires yi ñu toog di lëndëmal sénégalais yi nañu ubbi enquête ci mbir mi. mais Tall yow boo ne xam nga leen ba léegi doxul est-ce que bokkoo leen ci complice yi mënoo leen xam ñi ko def ba pare yéen seen bopp demoo leen déposer plainte ak ay non parce que mënoo leen de Amnesty International mhm. xanaa liiroo le mémorandum de l'opposition xanaa liiroo euh, mhm. parce que en réalité ñun opposant nekk dans une phase boo xam day dénoncer dama la simple dénonciation bu ñu nekkoon ci république bu normale avec une war nañ ko bàyyi mu liggéey mais le procureur allait s'autosaisir soxlawuñ plainte le procureur allait s'autosaisir ouvre une enquête indépendante ñu leeral mbir mi ña ko def parce que vidéo yaa ngi circulé il suffit d'aller sur YouTube mm-hmm. d'aller sur les réseaux sociaux nga gis ni quatorze morts yi xam nañ ñi leen rey maintenant mm-hmm. buñ fi nekk nag ñun ñoo njëkk a ñaawlu ñun ñoo dem jaale ji yaa ngi dégg mm-hmm. ñi ko def xam nañ ko te bu ñu yaakaaree ni c'est se parce que le fait que suul leen sans autopsie ça veut dire que amul woon volonté pour def ak yeneen suul leen mhm. ba pare ñëw di taf tafee dem di jaal ji di joxe ay kii nga ubbiwoon ubbiwoon enquête justice daf liggéeyam et permettre à famille respective de faire la deuil loolu moo normaloon maintenant dañuy naxee rek di lëndëm xam nga pap moom moom il est fort en ça lëndëmal. mais dafa am yoo xam ne nii non non danañ lëndëmal askan askan wi dafa am yoo xam ne d' accord bu ñu demee non may ma rek ma continuer may ma rek dafa woon lëndëmal ah. askan wi. Ah. mooy indi lii yëpp. mais dama ni loolu lëndëmal lëndëm nit ñi léegi dañoo yor seen i xel. te ji nga téléphone portable yi sama benn xarit danoo wax naa man si téléphone portable laa xam ne yàlla day gis lépp parce que à travers les téléphones yow yaa ngi gis lépp kenn mënatu la nax kenn li fi am am na fi ñun li ñu wax mooy ku yaakaar ni les faits sont prescrits 14 morts yi yaa ngi nax sa bopp te incha allah 2024 da ngeen fi abale ñi ñëw pouvoir bi on va rendre justice à ces 14 morts te li taxoon ñu doon xeex ba génn incha allah xeex boobu xeex dinañ ko wëyal maintenant maintenant maintenant maintenant xam nga ñun Sénégal lañ nekk xam nga sëñ tey ji yaa wax ne beneen bi mooy beneen bi mooy dafa wax léegi dafa wax léegi justice justice justice parce que nangam nangam nangam kaay ma wax la rek nga justice boobu ngay waxal tey jii nekk ci biir justice di ay magistrats am na si ñoo xam sax ils ne sont pas n'importe qui lu tal ni EMS nga jiite ko génn na écoutez y a un problème bàyyiwuñ justice mu liggéey ni mu war a liggéeyee mais am na ñu ko fi def. Mhm. lan lañ xaar lan lañ lan lañ gis après dañ leen doon persécuter le président Souleymane Téliko gis nga jamono ji ni ñu koy persécuter mhm. di ko jéem a toroxal te mënuñu ko toroxal nag parce que di nga ci ko yàlla teral yàlla teral na la di ko convoqué à la parce que y a un un certain Madiambal kii ba kii ne dafa am ñu làqatu ci ginnaawam. di ko poussé nekk soit d'attaque mais tey jii ku mel ni Maguette le président Maguette Diop wax ni carrément l' mm-hmm. exécutif a fait a une la justice mm-hmm. mais am na ay cas démission un magistrat démissionné je démissionne d'une magistrature qui a démissionné mm-hmm. mais nga bëgg taxaw naan ma non non justice damaa bëgg ne justice boobu ñun ñëpp ko moom ji nga magistrat yi ci biir am na ñoo xam dañoo jub dañoo honnête ils sont de l' en train de mener le combat de parce qu'il y a problème. boobu justice nag. Mhm. avec quelques acteurs lañ bëggoon a jël. utiliser ko instrumentaliser ko pour après faire entorse à notre démocratie loolu laa la wax ne le peuple a compris très vite. Mhm. et a ses responsabilités. d'accord ah. peuple boobu génn bu leen xeeb. xam nga dafa ne waroo leen xeeb. peuple boobu génn moo taxoon yow sa chef parti politique génn ne je peuple boobu noonu bu ko xeex la récupération non dama ne ñoom moo taxoon ñu ngi leen di compris ba bañ ci paree annoncé ay enquête annoncé dafa lu mu annoncé xam nga dinaa génne tant de milliards fii dinaa génne tant milliards fee dinaa leen utal xëy dinaa leen utal nangam nangam lan la ci teg diwaat di def dans la ay yéen waa mafia kàcc kàcc <laughs> cette mafia kàcc kàcc fera face à la toute puissance du sàcc et du kàcc loolu na la leer d'accord mais euh, d'abord damay nuyu sama sama sama aîné moom surtout euh, maître Pape Sène mm-hmm. euh, Pape Sène li nga wax fii euh, contrairement à ñu bëri man je suis d'accord ak yow mm-hmm. la décision finale ne sera pas les révélations ne seront pas de comment on appelle ne sera pas les fondées sur des révélations journalistiques ce sera et le juge du, et même du Sénégalais le juge parle hein. ce sera le juge et son intime conviction mais yàlla dafa def ni que ce soit le juge mi atte que ce soit les officiers de police judiciaire ñu doon poser ay actes de procédure que le juge qui va aussi poser des actes de, de procédure ñoom ñëpp seen légitimité dañ koy tiire ci peuple sénégalais tout à fait comme ñun journaliste bu fekkee ne mooy le procureur ou l'officier de police judiciaire son patron c'est en quelque sorte le procureur le procureur son patron c'est le ministre de la justice le ministre de la Macky Sall son patron dans un état normal dafa war le président dafa war le peuple sénégalais bon le président le président de la République il tire sa légitimité il tire sa légitimité du peuple sénégalais et c'est ce peuple sénégalais là qui nous a reconnu nous notre utilité en tant que journaliste ne nañu càmbar lépp loo xam ne dafa lëndëm ci bëtam dans un passé récent am na lu bëri loo xam ne bàyyiloon nañ ko justice damay jël rek le cadre de de de délit de droit commun wala de crime droit commun bu bu ñoom Inno et Alex en 1998 bi ñu leen jàppee Pape Faye euh, Pape euh, mu ngi ci saal bi. Mm-hmm. jàppoon nañu ay nit ñu tëj leen fukki atu kaso. 2000 1998 lañ leen jàpp 2008 lañ leen doon jugé bi ñu leen jugé ñu leen defoo leen dara ñibbi leen seen kër. Mm-hmm.